yëpp yëpp peut-être gis nañu barki démb euh, sama cri de cœur boobu ma def euh, c'est vrai nit ñu am na ñoo xam ne commenté nañ ko peut-être nu ñu leen ko neexee peut-être am na on a versé de larmes père ay xol la ñu yor parce que tamit ay jullit la ñu te xolu jullit tamit dafa yàlla daf day tooy c'est important mais aussi tamit dañoo wax lu ñu gëm parce que duñu wax lu ñu gëmul lu ma comme ni ma koy waxee nous avons notre engagement politique avec le président Macky moom la ko parce que démocratie interne la ñu am ci ñu parti ñu doon wax ne APR amul démocratie dañuy wax lu leen neex donc ñun aussi au niveau de notre parti loo xamante neexu la boo ko xeexee ci biir mënoo ko am mun am nga droit aussi tamit génnee ko wax ko tamit on va profiter de l'occasion pour waxaat toujours que ñooñu noonu nekk di di ñoo ñooñu noonu nekk di ñoo ñooñu noonu nekk di di di ñu buntu xatal ci biir ñun gëmuñu leen ñun tiitu leen ñun faalewuñu leen parce que ñun lu ñu gëm mooy lii liggéeyal président Macky Sall mooy nekk ci terrain bi jàppale jeunes yi jàppale ndaw ñi jàppale femmes yi encadré leen loolu la ñu gëm ñun gëmuñu lenn lu ñuy ñëw sa base politique tey ñu ngi ci yëmbal weekend bi yëpp dañuy nekk yëmbal gëmuñu rek nekk ci ab ab siège toog fa di wax suba ba ngoon toog fa di wax une semaine toog fa di manoeuvrer toog fa di def naka su dul noonu ñun lu ñu président sant comme mun ko waxee keroog mooy lan dem leen ci base ba leen wax ak population leen wax lan lañ liggéey les réalisations du président euh, la formation la formation professionnelle lépp loo xamante tey président def na ko ñun ci loolu lañ nekk mooy liggéey le président de la République euh, mais nag comme ni ñu koy waxee xale boo nekkee ci yoon day metti Euh, méttit boobu dañ koy muñ gëm ko xam ne tey amaana peut-être bu ñu tekkil woon dara amaana peut-être bu ñu amul ay jéego yu rafet yoo xam ne def nañ ko amaana tey peut-être du ñu xeex kon nu ñu koy xeexee mais tamit comme yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam gën di mbindeef tey lu mu dañ koy nangu le président Macky Sall aussi di suñu leader moom aussi lu mu amul xamante ne muñ na ko donc daf ñoo woowaat toujours ñu muñ dal amaana retenu xam ne ay ndaw lañu xam ne aussi tamit xeex boobu day day firnde ne que suñu action yu ñuy def action yooyu aussi am portée la lu am solo solo di profiter occasion bi di lancer un message euh, mag ñi surtout ñu nekk suñu parti ñi xam ne ñun ay xale lañ nañu xoolee comme ni ñu xoolee seen i doom nañu xoolee comme ni ñu xoolee seen i jarbaat nañu xoolee yërëm ñu xam ne ñun ay ndaw lañu te du ñu ay ndaw yoo xam ne dañu ñoom lu ñu yor ñun mënuñu koo yor ñoom lu ñu tey ñun mënuñu ko yor mais ñoom ñoo ñu war a encadrer ñoom ñoo ñu war a tette ñoom ñoo ñu war a jàppale xam ne ñun tey euh, peut na ko taxawee parce que mooy lan ñun du ñu ay fenkat du ñu ay jaxasekat du ñu ay nettalikat du ñu ay nit ñoo xamante ne tey dañuy def la sale boulot xamuñu loolu ñun lu ñu xam mooy ngëm-ngëm ak pas-pas ak ak dëggute ak maanute loolu la ñu xam politique bi dañ koy def ànd ak xadar bi xadar bi parce que du ñu wax lu ñu gëmul moo tax nag ñu ngi leen di toujours que nañ nañu nañu nañu xam ne lépp loo xam ne nit ñu koy def ñun wala dañu ko bundukatal nañu xam ne ñun tey euh, président la ñu liggéeyal te président Macky Sall la ñu ko président di woowaat aussi ndaw yëpp ci dal di wowal wax ne an incha allah rabbi ñun suñu circonscription au niveau du département de Kër Massar au niveau de Yeumbeul Sud en tout protéger suñu bopp nos nos biens communs protéger suñu bopp les biens de l'État les biens biens publics protéger aussi tamit loo xamante tey tey moo xam ne tey askan bi yëpp ko bokk te aussi ci loolu la nekk.